với Chico Chico Chico Chico Chio Mà anh lên con sông lòng với dưới nè Chico Chico Chico Chico Chico Chupa với Chico Chico Chico Chico Chio Mà anh lên con sông lòng với dưới nè Dưới nè Chico Chico Chico Chio Mà anh lên con sông lòng với dưới nè Dưới nè Chico Chico Chico có chú ba hô chi chi cô chi cô chi cô chi cô chi yêu mà anh lên con long chơi đi lờ chơi đi lờ

yéen ñoo fi bëgg de ne leen de mantoon moo fi ñëw de dugg sax sama reeni xool fa la ma yëg ko yaay sama amul ba yaay sama koko sa amul bu amul ma teel a sàcce kon. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Tade ana moo. moo dafa génn. soriwul. soriwul de maa ko yónni léegi rek mi ngi ñëw. kon mën naa koo xam. waaw xaar ko. lépp naa sax. toos. wala alhamdulilah. maa yàlla ba alhamdulilah jaar yàlla ba alhamdulilah. alhamdulilah. ma de sama tante mu yónni woon. ok ba jàmm. waa jàmm ok alhamdulilah ok waaw man sama problème mooy sànq dama fayoon courant nag wante yow fi trois mille francs je crois la waaw soo àggee ne ko mu jàpp si lii rek. naa ñu fekk fan incha allah. en nga keroog. waaw keroog ñëw na ñëw naa seen kër. fekk sa papa. xaw ma ma sa nijaay la. sa nijaay la sa nijaay la sa nijaay doy waar la. <laughs> moom moom mi li muy def nii waaye na ko sax yow soo mënu ah. tey jigéen na ko libéré moo gën. sama sër dumbaam. dëgg la te te dëkk yi jàpp di dóor saaga. te jamono bii jigéen kenn dóor di ko saagatu ko. dëgg dëgg la dëgg la man comme yow comme yow comme yow mhm. xale bi yaru nga mhm. moo tax ma di wax ak yow soo àggee na nga wax moom mu dégg bu baax incha allah man jigéen soo ko mënul téye da nga koy delloo ay mbokkam incha allah jigéen da nga koy yor yiir ko yërëm ko moo gën li muy def noonu dëgg la tons ah nekk fi di jëmi jaay affaire gaynde affaire genre yooyu da ngay keroog mhm. déko naa déko yoo xam ne xam naa dégg nga sax da nga jëru moo tax quoi fekkuma fa fekkuma fa fekkuma fa mais tons gis nga àdduna c'est simple dëgg jigéen da nga koy aar yiir ko yar ko tu vois. Mm-hmm. parce que sama tonton moom dafa yor benn xel boo xam ne comme xale. Mm-hmm. fii jamono ji dañoo weesu di dóor ay jigéen di maltraité. Ah, jigéen lu muy def sa jour ko jëfee maa ngi ciy teg sama bët. mais lu ma si mën toos mënu ma si di ko dóor. Mm-hmm. di ma sama xol sax dafa sedd instant bi. wante ma xamal la si nga beneen yoon incha dama koy yóbbu justice. ndax jamono bi dé déglu ma rek ndax sama sër du mbaam dañ ko jox fu mu sëy fu mu sëy fa gis nga la prochaine fois dañ ko yóbbu justice te bisu àggee foofu dina xam ma maay kan ok yow ak nga ma ko def waay ngay waxati yabaati yabaati bu a dee ah ñu jox la jigéen mënoo ko téye ngay soo tot eh Ablaye li ma doon sànq pare nga waa waaw ndax xam naa femme bi li mu ñëw sànq woon na mission quoi acca mu gaaw kan xamul kan xamul ah soxna yooyu nga bokk mu dem yaa ngi di yóri di ñaanatu ay fii man des fois ma xam ne xol boobu tañ quoi xol boobu baax rek macha allah. eh Momo kaay kaay kaay kaay. booy yow kaay sànq ba léegi yow laa xaar. dafa ne mën nga maa daw si ci nawet bi. oh defal naa ko yow batterie bi nga ma jaay dara baaxul. Eh, deux mille eh, nga ma defee mënul taal. ma eh, fay sama xaar. lu xew lu xew. déedéet taxawal taxaw leen. waay ay waay waay ma bàyyi ko bàyyi ko ma wax la bàyyi ko ma wax la. yow dërëm doo ko jot. ay moomoo bu ma indi problème sa nijaay ci biir bu ko déggee. lan la xam nga la moo may jaay batterie batterie moom nga jaay 2500 ne ma batterie bi baax na ma àgg suñu kër déclenché ko 2 jours. waxul dëgg tàppul waxul bi day néew. yow da ngaa jël bu bees si cinéma bu ma jaay baaxul lu muy dawee da ma fay sama xaalis. xaaral xaaral moomoo kaay kaay kaay kaay. dinaa génn tay jox na jox na ma 3 ring abal te boo da nga xaw a yawaate sax. waaw waaw nga naan da may puñu yow. deux mille sept demal jeex na da ngaa jox da ngaa jox. jeex bu moo sa ndijaay. waaw ban ndijaay. moom moo kaay moom moo jeex na ay. ay waaw waaw taxaw taxaw taxaw. waaw tante déedéet tante waay. moom moo tax nga déedéet non non waay sa ndijaay ci biir. waaw waaw baax na waay mu xam nga dem nga jox ko deux mille cinq cent nga ko ma. non tante déedéet waay waaw waaw. waaw jeex waay xanaa ma jéem cee togg añ rek xam lu may togg problème chaque jour rek jikko jikko añ bi pare na xale xale tibbal naa leen hmm. waaw maa ngi soom bi des fois du soom bi nga may togg a lañ